Ucab FM. li gën a fës Papa Saer Mbaye. bis. mille projet de loi jëm ci wàllu ko finance ak budget bi nga xam ne ko tàmbali koy waajal yéeni kaay bi moo xëy di xam rek ne croissance doon ak yokkute goo xam ne kon ci ñaari chiffre mu doon 10 virgule 1 lañu ko fas yéene nemeeku yéeni kaay bi xëy di xamal rek ne luñ ci mën di nemee ko nag lu jëm ci wàllu recette fiscale doon koppar yu ah, fas yéene ko ci dajale toll nag ci li nga xam ne kon moom moo di eh, ñetti yu tegal ñeenti téeméer eh, bu ñu koy xool ko ca yéenekaay bi xëy di ci li nga xam ne kon moom moo di bitim réew mi yéenekaay bi xëy xamal ne bor yi nga xam kon gis nañu ko

Alassane Sall ak ki nga xam ne kon moom moo di porte parole bu gouvernement bi Abdou Karim Fofana yéen kaay bi xëy di xamal rek ne lu jëm ci wàllu ko contrat d'exploitation yi nga xam ne kon jëm na ci wàllu ko ressources gazières yi bi nga xam ne xam la ne luñ ci mën di nemmeeku nag fi mu toll ni kenn ku ci ne ak lu leer la nga ko ca yéen kaay bi ba tey di xam la ne luñ ci mën di nemmeeku wàllu ko nguuru bi nga xam kon lu jëm ci wàllu ko pétrole bi nga xam kon ñoo ko war a moom nag exploitation doon génne gi pétrole beeg gaz bi yéen kaay bi moo xëy di xamal ne coow dëggantaan lañ ci jot ne mais ko diggante Ousmane Sonko eh, mi nga xam kon moom nag nee daanaka boo koy xool eh, téeméer boo jël fukk la ci nguur gi moom ki nga xam ne kon moom moo di Thierno Alassane Sall moom nag eh, ma ngay naqarloo ko ñaalu anam bi nga xam ne kon moom la ñu waxaale lu jëm ci wàllu négociation yi doon rek li nga xam ne kon moom lañ cee gis Abdou Karim Fofana mi yore kàddu nguur gi moom xëy di leen weddi yéen kaay bi xëy nag samplaaj bi nag kan moo ci wax dëgg loolu nag dëgg-dëgg mooy li nga kon moo jaaxal askan askanu yéenekaay bi di xam le ne Sénégal fi ko ah, di ko jëriñoo yéenekaay kon gis nañu ko ci ah, sunu naataangoo yi moo xëy di xamal rek ne luñ ci mën di nemeeku loolee doon na loo xam ne kon ñii di borom xam-xam yoo jëm ci wàllum koom ña nga ca def xalaat ak ak taxaw seetlu bi xëy di xamal ne luñ ci mën di nemeeku daanaka rek benn takk der dong bu gis nañ ko ci kaw tableau bi mooy lu jëm ci wàllu lii di investissement yi nga xam ne kon jëm na ci wàllug askan wi yenn kaay bi moo xëy di xam le neen foofee dong la ni gis lu jëm ci wàllug genn ko wàññeeku goo xam ne kon dana toll ci téeméeri juróom benn fukk ak juróom ci ay milliards yenn kaay bii de Time Quotidien ñu koy nettali su naataangoo xëy di xamal ne amul benn budget boo xam ne kon gisagoon nañu ko ci su naataangoo moo xëy di xam le rek ne budget dëggantaan bi nga xam ne kon nguuru Sénégal moom la bëgg liggéey ci at mi toll na si juróom benn junni yow tagal ñeenti téeméeri milliards yoo xam ne kon atum 2023 bi moom lañu fas yéeneen yemee nemmeeku yéen kaay bi xëy di xamal ne loolu nag ak yokkute doon croissance à deux chiffres boo xam ne kon moom la Sénégal fas yéene ne Sénégal kay fi mu a joyanti kaay bi di Walf Fadjri moom ma nga xëy rek ne luñ ci mën di fay bor yi nga xam ne kon am nañu ko ci loole dafa doon loo xam ne kon lu jàmp la te nag loole dana ak ak jeexital ci li nga xam ne moom moo di budget 2023 bu ñu ngi koy waaja wote yéen kaay bi xëy xamal ne daanaka

yéenekaay bi lii la quotidien moo xëy ko nattal li leen di société de transport dem dikk daan Dakar dem dikk nga xam ne kon yéenekaay bi moo xëy di xamal nekkay fi mu toll nii buñ doon ay malade daanaka mën nañoo wax ne sukuraat ca la ñu toll ay jafe-jafe dëggantaan la ñuy jànkoonteel yéenekaay bi ba tey xëy di xamal ne luñ ci mën di nemmeeku ngir rek fexe ba guñu dundaat loole doon na loo xam ne ko ittee kilifay nguur gi bëgg nañ caa taxaw yéenekaay bi di le quotidien moo xëy di ko nettali FMI di Fonds monétaire international yéenekaay bi moo xëy di xam leneen la mu seetlul Sénégal mooy rek lu jëm ci wàllug subvention yi nga xam kon am na ko ci politique d'investissement doon liggéey yi nga xam kon li nga xam kon moom di di nguuru Sénégal projet yoo xam kon ñoo ko mu jëm ci wàllug askan wi bëri ci loo xam kon fi mu toll nii ñoo def ngir rek mën a gën a nokkil askan wi ci jafe-jafe yi ñu ngi koy bi le jour ñu koy nettali yeneen kaay la leen ñor bokk ci wàllum

diggante Sonko gendarme si dara neexatul ah, ci seenu ko diggante yéene kaay bi xëy di xamal ne luñ ci mën a def ba li xamal ne la ñu faral di dox ñoom nag daanaka daal war nanoo mën a gaaw ndax li nga xam ne kon fi mu toll nii moom moo xew ci mooy xeeñ ci diggante Ousmane Sonko takk der yi dara lii boo sàggantul day bu ñu yeexee musiba mën na ca am kon ku war a jóg jógal Sénégal Sénégal kay fi mu toll nii yéen kaay bi moo xëy di xamal ne kay taxaw nañu temm su naataango Sud Quotidien di xam la ne lu ñu xamal ne ab ndaje amal ak ñenn ci ay waaye nag ñu ci bëri de lañu yëkkatoon ci ay mooy di ko laaj nag ngir mu lette wala mu firi leen Eh, ci 2024 ndax day samp ndënam waaw wala déet yéen kaay bi di Sud Quotidien xëy di xam ne ne fi mu leen firiwu leen ndax xamuñu ci fan la cay taxawee yéen kaay bi xëy di xam ne nag président Macky Sall lam leen wax na mooy ci liggéey bi ci la kenn moo koy digtal lu mu war a def lii wala lee wax wax waxtu wax ko bu jotee dana ko wax enquête yéen kaay xëy di xamal ne kay fi mu toll nii luñ ci mën nemmee ko kay daanaka li nga xam ne kon moom lañ ci bëggoon lu jëm ci wàllu ko ndorog président Macky Sall moom daanaka waxagu ci dara loo xam ne kon luy leer la ndax dana samp dënam waaw wala déet ci 2024 leeragul dara amugu ca lu man mën ko teg ci taabal ji yéenekaay bi xëy di laajte lu jëm ci wàll ka taxawaay bi nga xam ne kon nemmeeku nanu ko ca ginnaaw bu mu fësalee nataali kii di Khalifa Sall Thierno Alassane Sall Ousmane Sonko Karim Wade opposition bi nga xam ne kon moom la ñu gis fi mu toll nii kan moo ci taxaw euh, tem rek ngir mën a daan nguur gi nga xam ne kon moom moo fi nekk tey ji kaay bi moo xëy samp laaj bi Ousmane Sonko su naataango yi xëy di xamal ne daanaka ñu bari moom la ñu gën a bàyyi xel gi ñu ko jëkk politique gi su naataango yi nga xam a kon ñoom nag jamono kenn ku ci ne yaa ci taxaw ak seen ay député yéenekaay bi xamal rek ne luñ ci mën di ko fi mu ñoom demoon nañ daanaka ay bisu lëmm goo kon am na ay proposition de loi doon ay xalaat yu bëri yoo xam kon fas yéene nañ ko yóbbu ca ndaw réew ma ngir rek soppi lenn ci li xam kon moom moo di doxal ne réew bokk na ci code électoral bi lañ ca bëgg rek mooy delloo ak yelleef Karim da ak Khalifa Sall ngir ñu mën di wote waaye itam doon li xam ne kon mooy taxawaay bi bëgg ñu xëy di koy xool dëkk yi Sénégal ji yore wàllum bitim réew di affaires étrangères Sénégal extérieur Aïssata Tall Sall moo xam la lu mel division des investigations criminelles doon dikk yéen kaay bi xëy di xamal ne am na benn réseau boo xam ne ko réseau international la boo xam ne kon dañ doon def ci wàllum duubalum visa ñoom nag libération mooy ñu a ci loxo yoon la xam kon moom la leen di toppe bokk na ci àndandoo def ay ñaawteef waaye tam lu jëm ci wàll que migration doon yóbbu ñenn ci ay ki doomu yoo xam ne bitim réew doon dem te ay këyit yoo xam ne dara baaxu ca yénn kaay bi moo xam le nag fi mu nii yénn kaay bi xam le ne ba tey def na nag ci kàddu yi xam ne ko ñoon askan wi ku ci ci ne yaa ngi koy tàggat kañ ci li nga xam ne kon jël ko ci ndam su naataangoo yi ah, li nga xam ne kon jot nañ ko caa jox ci wàllu kër raaye Dakar actu point com yéenekaay bi nekk ci internet bi ma nga ca campagne agricole bi nga xam ne kon fu mu toll nii ña ngay xool lu jëm ci wàllu ko li nga xam ne kon moom moo di njëgu luwaas bi waaye itam jenn ci njëg yi nga ne dañ koy jëfandikoo yéenekaay bi moo xëy di waxtaan rek ne jamono ji ki nga xam ne kon moom moo di Elimane nag doon secrétaire général bu CSA moom nag ma nga ci yëkkati ay kàddoom ne nag li mu gisagul dara daaru jàqalam ba tey ca Kaolack googu nga xam ne kon di lañu gis ak musiba gu fa am kaay bi di dakaractu.com moo ñu nettali faatu goo xam ne kon kii di faat bee moom nag ki nga xam ne kon faatu na ko loolee yéen kaay bi xëy nag di nettali kàddu yi nga xam ne kon way juróom wa ma ngi ko yëkkati moom El Hadji Thierno Samb El Hadji Thioune Samb moom nag nee na la mu bëgg rek mooy mbir moom lañu ko teg ci yoon ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg doomam ji lan moo ko faat su naataangoo yi di emedia point sn nekk internet bi ñoom ba tey ña nga ci budget Sénégal bi nga xam ne kon mu toll nii daanaka ñu bari ña ngay xaar ngir rek wàllu ko wot bi yéen kaay bi xëy di ca tasaare lu jëm ci wàllu ko chiffre yi nga xam ne kon jot nañu ko caa ak li nga xam kon jot nañu ko ko cee jeexal yoo xam ne kon daanaka nag faaw rek ñu leen xel ci wàllu ko budget bi du ci mel ne de la république et jiite président Macky Sall nekk ci booba primature bi nga xam ne kon Amadou Ba ko jiite assemblée nationale Amadou Mame Diop ma ko jiite waaye kaay bi xëy fësal seen ay nataal bokk ca ki nga xam ne kon moom moo di Idrissa Seck mi nga xam ne kon moom itam a bokk na ci kër gi nga xam ne kon war na koo jiit moom itam jiite na ko ñu war a xool dëgg-dëgg kër gu ci ne la nga xam ne kon war nañ ko ca nataal ci budget ren bi mbokk yi yéene kayam Papa Saer Mbaye